jëf mbokk yi ñuy siiful ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax baax ba léegi rek comme ni ñu koy defee ñu ngi fi nga xam ne mooy Saliou Sidi Diakhaté ginnaaw bi mu jógee ci bis bu am solo diggante ki nga xam ne mooy Mor ak ki nga xam ne mooy Bàcc Mbow mais ak ki nga xam ne mooy Cere Càq dafa taxawalaat beneen bis bu am solo mu jëm le 27 août muy combat boo xam ne li ñu koy waxee saa su ne amateur lamb yi saa ne ñu ko doon waxtaanee mu doonoon combat boo ñaari mbër yi bëggoon nañ ñu mu taxaw mu dox ci digënté ki nga xamni moy soxor kale ak ki nga xamni moy Modou Anta numéro 2 loolu la ki nga xamni moy Père sir jaxal taxawal la 27 mais gis ngeen premier combat bi nga xamni taxawal nañ ko fi dox ci digënté Liss Ndiago numéro 2 ak ki nga xamni moy Boy Bambara mais bala ñoo so rek dañuy bayyi Liss mu nuyo mu waxtaan ak adversaire am waxtaan ak ay supporter am Liss nuyu nañ wa Kara fay nan la ginaaw buñu ñu santee yàlla ñooy julli si bi di sant suñu ñaari wayur wa di sant sama mag be ma andal Ousmane di nuyu sama ko su mam sa waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama adversaire jàmm ba bis ba yàlla may ma ndam si kawam. Boy Bambara maa lay fay di bëggee képp ku fi teew di bëggee képp kuy bëggee Boy Bambara waaw di nuyu sama adversaire di ko bëggee bu baax a baax di nga di ñaanal jàmm quoi ba si bis bi en tout cas bu bis ba lu mu def day daanu si kàttanu yàlla. Liss Ndiago numéro lu mu def daanu. foo teg loolu. foofu ma quoi moo tax. foo. waaw ñii dañuy foo man ma teg cin. moom day foo. waaye day xaar lu mu def daanu xanaa déggoo olof. ba bis ba incha allah le 27 soriwul na liggéey nag bu baax. mais lii sa adversaire teel na laa ñeme de nee na loo def daal. waaw Kara loolu waxu làmb la rek xam ne booy nii dañuy nekk fii di sumbulu rek mais bu bis baa bu neexee yàlla billaahi da xam ne mënul bëre quoi. nee na liggéeyoo nga liggéey. liggéeyoo ma loolu ay waxu mbër la rek ñu ay xale ndaw lan kii moo mag sama mag yi nee toog kii boo kii di rëbbi bu yàqu nga am ni kii magum jëmm la. ak sama waaw di woo sama sama na daa am combat quoi. waaw di jodi jodi lay bëre di ko ñaanal ndam waaw ndam lu seddu guy waaw. sa nga woote la waaw di woo sama booy ma nekkal rek booy araba ay ñoom Bozal Seexa sama doomu ndey di woo di Samb sama doomu ndey di woo Doudou Gueye sama patron di woo Modou Angale ak képp kuy bëgg liis rek di woo ñëpp ñu jàpp si di woo waa araraay ba tamit ñu jàpp si combat bi bu baax baare taax kaw ngent bàyyi ma kenn képp kuy bëgg liis rek maa lay woo nga jàpp si combat bi. yàlla may ma ndam si kaw Boy Bambara. Boy Bambara wooteel pour la 27. waaw maa ngi woo képp kuy bëggee Boy Bambara di woo sama kërtu di woo sama waa dëkk bu baax a baax muy Karamo di woo waa Kermo Ndiaye bu baax a baax Bamba maa lay woo si combat bi di woo waa arab yëpp arab jakarta bi sifo ralliman yi di woo ñëpp di woo tamit mafia di ñaanal Modou Anta champion bu mag bi suñu borom may ko ndam bu sedd guy di ñaanal avenir suñu borom may ñoom ñoo ma jaaxal mais man booy bi jaaxaluma. mais côté mobilisation sa combat bi jaar li nga indi woon ci mbooloo moom la ñëpp di waxtaane est ce que mën nañ koo xaaraat sa combat bi. la waaw la. sa combat mbooloo day gën a bëri. sa hmm? combat dinaa a waaw prouver. kon lii sa am na problème da ngay laaj wala. man dama teg cin xanaa déggoo. lii sa am nga problème de booy bi li muy indi ci mbooloo kii day wër di wax ba foofu rek xool di woo ndonga nag sama papa ndonga Guèye rek yaaram Guèye mbër la moo ma yar di woo magam Mbaye Guèye taal bi suñu Abdou Karim mu jàpp si combat bi bu baax képp koo xam ne nag déggoo sa tur maa lay maay jéggalu quoi ba bisoo incha mbokk yi ba léegi rek bisub la 27 gis ngeen beneen combat bi nga xam ni taxawaat na dox ci diggante ki nga xam ni mooy Badaxule numéro 2 ak avenir muy combat bu am solo di komba boo xam ni nee naa ne coow li daa teel a bari te ñoom ñaar bis bi ñëwaguñ. ñu jëm ci bis bu am solo fële nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma koddu grand combat dox ci diggante Modou Anta numéro 2 ak ki nga xam ne mooy Soxar Kale mais bala ñoo sor rek dañuy bàyyi ki xam ne mooy Badaxule numéro 2 mu nuyoo waxtaan ak adversaire am waxtaan ak i supporter Badaxule nuyu nañ maa lay fay ñu ngi ziare bàyyi nam jàmm si bu baax da koy téy nag ñoo ngi am jàmm waaw man dan maa xamewul wax nag waaw mais maa ngi ñaanal sam papa fa mu fa tëdd gënal ko fi mu di ñaanal sama yaay bu baax lim lim jublu nii mu yegg ak jàmm ak salaam barke borom Touba. tey da ngaa teel a de wala adversaire bi la. waaw xam ma man ne maa wax ba ku si nekk si fii di wax nii rek da eggu si géew ba rek yaa may dégg woo aale aale di woo ba da xule teel ngaa woote de. non damay woote. man ah? man fii laay wootee. fii nii moo damay woote fii woote fee maa ngi woo aale di woo ba da di woo Père Malay Pape Bas Pape Sidi sama rakki papa yëpp maa ngi leen di woo. soo seex bëgg maa ngi koy woo bu baax a baax a baax di woo sama waa koñ fans club bi bëgg naa leen bu baax a baax maa ngi leen di woo si combat bi di ko mel ni ñoom fay ñoom taala taala taala mooy jaayee koñ ba ko waaw ay furi yooyu la jaay waaw baal ma jox avenir comme que yow moom ñi ma woo wax avenir moom dawul coow avenir nuyu naa la waaw Kara maa ngi lay fay ginnaaw ba ma sant yàlla julli si yonte maa ngi sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa yàlla bàyyi ko fi ak sama yaay bañ féké sama ndariñ parce que buma démé bu béré gannaaw yalla ñom ñoo tax di nuyu sama rak baay Abdou ak Massamba sama doomu nday di nuyu Amadou di ñaanal Modou anté yalla nako yalla may ndam lu ak Boy Bambara di nuyu nak baax baax baax sa adversaire Baraxule numéro 2 mom né nu mu wax né day baay day woote. manam man duma manam ñim bëreel yow mi nii. waaw dafa bëreel ay mbeur di len jaay lamine bu di len waaw man duma kon tey moo tax mu dikk yàlla kii bu bëggee léegi man ak moom bu ñu génnee ñu géewal ñu bëri ma daan ko jour laa ma ñu ma daan ci biir wax na dafa am wax ju ma wax. lan la wax mu ni maanaam moom fii lay wooyee ñi muy wax fii la leen di wooyee mais jour boobu man maay toog plateau si kàttanu yàlla. looy tontu ci loolu. gis nga. nee na ñi nga daan bëreel. xam nga ne dañoo xawoon na kii moo tax da nga leen daan jàpp waaxu leen ci ay wax. man gaynde laa de. ah lu tax woonoo ko kii sa adversaire. xanaa déggoo li ma la wax biir géew bu. tëjee bis bis bu ñu tëjee barrière yi. jàkkaarloo leen caméra moom si wuy ma seetaan naa ko kii du bëri du bëri kat moom mii du bëri kat nee ko mu bëre na bëre yow nga bëre yaa ma damay dund fii wuy ma wuy ma damaa bëgg nga xeex bëre. xanaa man loolu laa bëgg dinañ bëre loolu laa xeex waaye taxaw di songoo déggoo ma xanaa léew too saaku ceebee waxuma ko man loolu laa bëgg man loolu xanaa déggoo li ma la wax booy laa la wax amuñu xeex kale bu may daan ma xanaa yow tàppen nga dama lay duma daan ci kàttanu yàlla maa la gën a féete xale maa la. kii kan la ma sax yow laay ba doxul la yow laay waxal. waaw waxal yow laay waxal waaw nga déglu dégg nga la. bisu làmb damay dox sa kaw dama lay duma dama lay daan. boo ñëwee sama kaw mën a dañuy daje. làmb ji du yàgg sax. waaw lu ma lay déggal mooy. man amul loo may ku xëppi déggoo ma da nga koy wax ñiy seetaan ku xëppi yow yow yow wuy ma non da nga may déglu fii yow da nga may déglu ku xëppi laa la wax combat bi du ko gis maa la dàq bëre maa la dàq xeex bañ yegg Medina laa dëkk Medina Fall. man Moussante laa dëkk Mouride ga. boo nga nekk ragal dëkk fa ya bu ngeen ñu yebee léegi la. loolu waxtu bi la nii te bu ngeen ñu yebee sax ci kaw. yéen ngeen ñoo yeb mais billahi wallahi mais combat bi combat bi léegi man maa ngi loolu. déggoo ma waa Mouride ga dañ maa yoon dañ maa yàqamti. lu leer nañu la yow tappat nga. Mm. wala mm. kii fekk naa leen seen seen koñ. sama koñ doomu njóobeen takk ngemb barki yonent yàlla Mohamed bi ma ñëwee. waaw da ngay déglu may déglu laa bi ma ñëwee. ñoo fekkoon nga ko ma xanaa ki ñu gën a yaakaar. Ah. laa jàpp waaye du loo muy Maam Sa. Maam Sa lañ teg seen yaakaar moom ñetti yoon laa ko daan ñetti yoon. wooteel wooteel la waa murit yëpp waaw di woo Père Habib Kane di ko wax lamb ji sa la gannaaw yàlla bu ma jëlee lamb ji moom moo tax yaa dégg di woo Sidi Baba di ko wax mu jàpp ci combat bu baax a baax a baax ak Ablaye Fall di woo Père Fallou ku su mel ni Père Djibi Thiam di woo waa murit ga yëpp nag waaw sama mafia bi booy bu yàgg lañ defar tiset tiset bu nekk 10 000 lañ ko defaree Dakar. pour la 27. billaay wallaay bu yàgg lañ ko def bañ ko bañ ko defaree sax boobu amaguma combat kii nii daa am lu tax ma jël ko quoi damay faj mer moo tax ma jël ko. seen écrit dinaa fa dugg duggaat fa doog faa génn. su écrit doo fa daal kenn incha allah rabi. dama fay waaw maa ngi woo ax ma ax ma Cissé di woo Ibra Ndiaye di woo Nogoy Seck si combat bi maa ngi koy woo Aïda Seck ñoom ñëpp maa ngi leen woo si combat bi Ndiassé yaa ngi dégg Baye Diagne maa ngi koy woo maa ngi woo Alaaji Ndiaye politicien Baye Jabel maa ngi koy woo nañ jàpp si combat bi xam ne na comme dab rek na ma ko defee woon laa koy defee waat bu bu bu gëmmee sax bu xëppee duñ gis dara. yaa ngi dégg maa ngi woo ñoom seex Fall non stress ñoom Khalifa Mbaye Mori Imam Cissé waaw di woo sama gars yëpp ñoom fëgg a bari ñoom mu fàttee ñoom laay gën laay kontaagal waaw. ak ñoom Babylone nee ñoom building lay kontaagal de. man ay Moodu Anta de la ñoom Moodu Anta ñi ngay kontaagal barke alxuraan mënu ñoo bëree. kooku soxor kele da koy jàngal bëre incha allahu rabi mun ñoo bëre. billaa walaay mun ñoo bëre. ñi may kontaagal yow xam nga ñi may kontaagal dama diis ñoom Babylone laay kontaagal waay waay waay waay diis. di woo di raay ba di woo arrêt raay ba di woo arrêt banque ba di woo ang waa angal moo jaxeer waa taax kaw ñëpp woo maa ngi leen waa Dombasko ba waa arrêt kaw arrêt kaw éco euh, xaaxam ñépp maa ngi leen woo waa tali bees maa ngi leen woo si combat bi di woo sama waa koñ maire koñ bépp woo naa leen tanday MB maa ngi lay woo si combat bi waaw maire Fat Fall woo naa leen baax a baax ñu bàyyi nga jël photo xam nga combat bi tax mu garaaw mooy ñoom ñaar ñëpp kii buy ñëw soxorkare lay àndal moo mooy moo koy ubbil kii moom itam mu daan numéro 2 lay ñëw moo koy ubbil moo bi doon combat bu neex mais ñu bàyyi ngeen jël foto fi ba legui rek bisub la 27 août fële nga xamni moy hippodrome Ndiawma kodu grand combat dox ci Modou ante numéro 2 ak ki nga xamni moy mooy Kale mais benen combat bi taxa dox ci diggante yaro bax ak ki nga xamni moy Boy jobas numéro 2 mais bala ñoo sot rek dañuy bàyyi ki nga xamni moy Boy jobas numéro 2 mu nuyo waxtaan ak ay supporteram waxtaan ak adversaire ñu ñu la wa ma lay fekk kala di ziar mbooloo mi fi tok ñep ku nekk ci touram ak santam wa di sante sama ñaar wajur bu baaxa baaxa baax parce que yaaka na bu mo taawee tay di wax grâce à ñom kon man awma sen fay waaw di sante sama wa deug ñep waaw parce que buñu jappé bobu légui bayé wuñ ñun bu démé fi ba bañu ñu fi nit ñi xam ñu si làmb grâce à ñom parce que à chaque fois ñu ngi veillé ci ñun di soxna ci ñun bu dégg bëjëk té te ñu suñu benn 100 francs di leen ko jox waaw ñun ñoy jël sen lépp diko def ci ñun. xam nga adversaire bi yoroo ba non non man xawmako ko. lolu non xawmako nak lolu risque. risque lolu <laughs> risque ci ñun kini ki du problème ci man. Hmm? ren di jéegi la xaru màkk. kini billah wallahi dafa nekk ci yoro yaroo baax nuyu na la. maa ngi lay ziar. ya ngi am diam sant wër wër lan ngay wax sa adversaire. ah sama adversaire ginnaaw bi ma sant yàlla di julli. xam nga ko di sant sama ñaari waajur di sant mbooloo mi toog fii yëpp. sama adversaire no xaw ko. hmm ma ko de fi lañ dajé rek mu ni ñeme na ma. mais lolu wër na. non loolu du risque ci ñun. chaque jour ñu entraîné. seetaan nga combat mu mujj. non non ko. moo jibbi weñ ngi numéro 2. seetaanu ko. seetaanu ko wallaay man ci sóoru moo ko sax yàlla xam na ko. ci dara. billaahi. du ci xeex du ci bëri ma naree sóor dégg yàlla ah lamb mooy suñu billaahi. adversaire bi xeex ak bëre. Kara barki Serigne Babacar si kii mu ngi tay live kii nii waaw. moo wax la lu leer. moom xam nga nee na dernier combat bi seetaanu ko boo ñibbee sa kër tapal si YouTube bi. boo ñëwaat boo ko waxee loolu du delloo avance bi. ah man naa am de mu delloo ah? avance bi mais bu dee keneen pare na rek bu delloo avance mu jox ma keneen rek billaa wala kii taxu maa jóg. nee na boo seetaanee combat bi mën ngaa delloo avance. kii xamul kuy teel a laay fa. barki Seydina xamu ko kii xamul yaroo baax de. kii laa xaw ma. barki Serigne Touba Mbacké 10 combat ma daan ko jël bu nekk du bokk ak moromam. barki alxuraan kon. mooy jabaas mi daa mel da laa billaay daf maa umpule. yow xamoo sax ki ngay wax moo tax ngay tallaxu rek. man du ma moo xam ne da ngay man du ma da ngay kinna laamu di wax rek non non man damay jëf te billaay mu la téye lamb bi la yàlla xam na ko. yow deux secondes nga wax de. bëgguñu sax si seen rajo. yow loo koy wax. Euh, deux secondes la wax moom. deux secondes xam nga ne ah. li mu wax noonu mënta nekk. mënta ne. déedéet lu tax mënta ne. barki Serigne Babacar Si kii taxumaa jóg kii taxuma takki sama ngemb jowaas ma andi ko fi xam nga kan moo ma tax a kan moo ma tax may reyante nii tey day ji man Pape Mbaye moo ma tax a jóg Pape Mbaye bu mag de waxuma la booy daa daa am bor bi ma lebal te mu bëre booy jowaas fii keroog mu am. mu demee wax ba génn ci yeroo baax mi kan kii ni barki rasulaay kii taxumaa jóg. billaahi mënuma daan. mënuma laa daan barki alxuraanul karim te su bëggee ñu may ko léegi fii léegi ah barke alxuraan kaay déet kaay leen kaay leen kaay kaay kaay kaay kaay defal nii eh, kaay ñëwal nii Babacar Si maa la ñëwal man taxaw leen rek ngeen jàkkaarloo jàkkaarloo leen da ngaa yaakaar ne volume la yaa ngi tayli sa laay wax naa la ko sànq man volume mu ma kii dama koy duma ba mu tëdd kii dama koy duma ba mu tëdd. kon am nga sóor si man sóor. Ah, ah lan mooy volume. Ah. parce que yow loolu nga yaakaar loolu nga taf ci sa mayan bi te loolu joobul de. loolu joobul barki Seydina Mohamed kii kala bu dof la loolu dama koy duma ba mu tëdd ci suuf. sama dernier combat bi yow seetaan nga ko n'est-ce pas. yow bu ma la naree arrière benn pas laa la wax barki Serigne Babacar Sy yàlla naa daanu. yow arbitre boo taxawee dëggal sa bopp mu duma la daan la. billaay wala yàlla naa daanu. woote arrière woote leen. man maa ngi wut man maa ngi wut tund jandeer wépp pour di rawatina Kër Moussa gi ma dëkk di leen wax ne Yal Mbine bi amati na ñu gën a jàpp ci bis bi maa ngi woo ñëpp billaahi bàyyiwuma kenn. aja wooteel booy Jobaas. man maa ngi waa Jobaas ñëpp di ko daggee Sipan ngool Fañing bi ma dëkk Jas Birbiraan Ceew Kisan Sange waa Ndaayan du ma leen bàyyi ginnaaw billaahi wallaahi dañu soxla ci man man lu ma am ci lu ma mën ci làmb tey di grâce à ñoom surtout Onge Ndiaye Euh, njaay njaay man manuma leen fay quoi parce que lu ne si man si wàllu làmba tey tey jii mën naa la ñoom ñoo ko def si man kon man vraiment awma seen fay di sant sama toos Arona Ciss mu jàpp si combat bi combat bi passé xam nañ ni mu demee fekke na moom mu taxawul benn euh, yenn position yi mais terewul moom reyante na li mu ci am lépp mu def ko si ñun waaw yàlla defal ñu ndam ñu ngi ñu ngi leen di ñaanat waa Jobaas ñu jigéen ñoo jàppalewaat ci combat bi nii. Aïcha mbokk yi ba léegi rek présentation journée Sidi Diakhaté mu jëm le 27 août fële nga xam ne mooy Podrom Ndiaw ma koddu dox ci diggante Liif ak ki nga xam ne mooy Fugu Bari numéro de mais bala ñoo sore ñu bàyyi Liif mu nuyoo Liif nuyu nañ la waaw auzu billaahi mina seytaan rajim ginnaaw ma julee si yonent bi sant ñaari waajur di sant yàlla bu baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu waa écurie Moussante bu baax a baax Fugu Bari numéro 2 nuyu nañ la. Kara fay naa la. ginnaaw yàlla bi ma julee si ñaan sant sama ñaari waajur bu baax te sant faga bëri bu baax billaahi kii aw ma fayam barke Sëriñ Bamba day sant sama combat kii nag leen laa koy wax jour combat mu taxaw dëggal boppam liif mi ni billaahi wallaahi taalaay xam nga liif xam naa ko bu baax ki tajul fenn kenn xamu ko hmm? barke Sëriñ Bamba kii li ko jël avance bi sax xamu ko te après lay comprendre nag liif xale bi teel na laa ñemee ah garaawul noonu la fa demee da nga koy bàyyi ak lépp rek. comme que ah. nee na mooy xale ko waa mais li ma ko mën a xamal ba xamal ko xam na ni liif daal ku xam liif xam ne liif du ragal daal hmm? mais laa ji bu dëgëree boppam ma jàpp ko daan ko. si gaaw waaw. xam nga ko. dugg naa fa duggaat fa génn duggaat fa kon daa war a leer. daa war a waaw waaw. dugg na fa duggaat fa te daa war a leer. après lay comprendre. arbitre sifflé génn suñu diggante ma ak moom. 3 hmm? minutes laa koy 3 minutes 3 minutes su ma ko daanul moo ma daan 3 minutes laa lay wax minutes lu leer laa lay wax xulli sa bët yi di xool. digal Kara Kara kii daa baax di wax rek kii daa baax di wax rek kii maa ko ëpp safara foog moom xam na loolu sax mais lu tax wanoo ko maa ko safara lu tax wanoo ko non dinaa ko wan dara yàggatul dara eh, kii nee na ma dama xool xoolal dama koy may sax yaa may dégg kii man ak moom du làmb sax nu mu demee la rek moo tax ma jël ma jël ko quoi mais kii tey lañ bu jëyee wax jox leen ma liif moo yow rek kii daa baax rek kii après lay comprendre kar wooteel billaahi maa ngi sant sama waa koñ bu baax billaahi aw ma seen fay di sant ku mel ni fëgg a bare barki sëñ Bamba day sonn sama combat loolu di waa di woo waa talib bees waa Dombosko ñoo aw ma seen fay sama combat dañuy sonn barki sëriñ Bamba Mbàkke kii nag après maa ngi moom la billaahi wallaahi taala yi wooteel waaw maa ngi woo waa Angle Sëñ Fallou yëpp di woo ñëpp di woo waa immeuble Mbourad Kébé di woo waa Jàkkay Mburit waaw di woo waa Moussante waa Xabru ba Ablaye Yaqin maa leen di woo ñoom ñëpp di woo sama xarit sama doomu ndey Dame Sène maa ngi koy woo mu jàpp si làmb ji di woo Habib kan ne ko làmb ji sa làmb la waa waaw xam nañ si liñ jugee waa mais erreur waratuñu quoi yàlla nañ yàlla may ndam bu soobee yàlla. ay ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi journée la 27 fa li nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw Macodou grand combat dox ci diggante Soxorkale ak ki xam ne mooy Modou Anta numéro 2 mais combat xam ne mooy Bent bu Jobaas mais ñu bàyyi ki xam ne mooy Bent Ningi mu dalal ko nuyoog moom waxtaan ak ay supporteram wax na lay waajale le 27 nuyu nañ la fay nañ la ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci Seydina Mohamed sant suñu ñaar waajur du nuyu ñi ma àndal mi ba buubu ak bàmmaar yóbbaale ñi képp ku fa nekk di ñuy waale suñu père Pambay ak yow mii ak képp ñi nga àndal ñëpp di ñuy ñëpp képp ku ñuy seetaan képp ku nekk ci kër gi rek ñu lay nuyu incha allah si kàttan yàlla. xam nga adversaire bi Tapha yi Tapha dama koy dégg rek xaw ma ko. da nga koy dégg rek. non xaw loolu man loolu du gaa si man ndax ni may dem su ma dee dem àll ba du ma xam ku may bëree damay dem rek bëree. Hmm? da ngay bëree luur bëree la sa bëree simile sa ñëpp nga bëreel. moo tax nga moo tax ma jël ko. Tafaatine bu Jabaas maa ngi leen di delloo bëgg. yaa ngi am jàmm. sant bu baax a baax. naka mu. naa est bi xam nga ko tafa kii benn nañ. ko lan nga koy wax. la 27. non rek laa koy ñaan bu bés ba incha jàmm rek laa koy ñaan bu bés ba. jàmm ak salaam laa koy ñaanal bu bés ba incha ci kanam adversaire la. non noonu la noonu la dara du dara. du daa loo koy nëb. non non du dara sax. du dara du dara. min nga ko. non miinu ma ko sax. soo ko seetaan mu bëre. non mais làmb la rek. Hmm? làmb la rek comme que day dugg ci àll ba te du xam ku muy bëreel rawatina man nag làmb la rek. yow da ngay dugg ci àll bi. non man Jobaas laa dëkk Jobaas moom boo ko waxee mu ci àll bi. Hmm? kon nag loolu du suñu problème ko pour man. la 27 lan lañ mën a xaar ci yow sa diggante ak ah man de li may ñaan yàlla suñu borom mooy ndam ci kawam. ci kàttanu yàlla loolu rek laa ñaan yàlla. mais mais ki njëkkoon a jël avance bi da ko da koo delloo ñoom ñaar ñoo bokk écrit moom mu ñëw jël. non xëy na loolu dogalu yàlla ndax dañoo ne dafa blessé. Mhm. loolu mënoon na dal. mais comme que moom la dal maa ngi koy sant yàlla comme que moom moo ko jël moom laa war a dajal le 27 incha allah rabi maa ñaan yàlla ndam ci kawam ci kàttanu yàlla. lan ngay wax ci kàddu yooyu. moom amul leen lu ma ci wax. Mhm. comme ni mu wax rek ñaan yàlla ñaan yàlla ndam ci kawam rek loolu rek laa ci teg amul leen lu ma ci wax. le 27. le 27 waaw ñeme ngaa samp jaaga xeex ak moom. lu mu laaj rek dañ koy def ndax làmb moom lépp ngay indi. Hmm? ñu duñu manqué dara lépp la ñuy indi rek yow indaale ko. ñu bàyyi nga woote le 27. le 27 ñoo ngi woowaa Taaxi Kaw woowaa Mané Fall woowaa Kër Maas Kër Cheikh Kër Maas Laaji woowaa Fouta waa waa Dakar hmm. waa Casamance képp kuy seetaan béet yaa ko doon laaj combat am combat nga ñew japp ci combat bi mu tunne ci dëkk bi dañ naan ne kañ ngay bëri kañ ngay bëri Béntine ngi nii xanaa gars yi dañ laa ñimewul woon ba tax sa combat jëm woon am combat hmm képp ku ko doon wax nga ñew japp ci bee doon laaj combat Béntine am amna combat nga ñew japp ci baax aja hotel tafati non man maa ngi waawaa joobaas bu baax ak sama gaay yi nekk Dakar di wa joobaas bu baax ba ñu ñew japp ci liggéey ci kàttanu yalla suñu borom ñu ñew def benn mobilisation dem daan waay ci kàttanu yàlla suñu borom ñu waat joobaat incha allah rabbi loolu la ñuy ñaan yàlla. aywa ñu bàyyi ngeen jël photo. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi journée Sidi Diakhaté ba léegi rek jëm ci la 27 fële nga xam ne mooy ëpp dorom Ndiobam Kodou comme ni ñu koy waxee grand combat dox ci diggante Soxor Kale ak ki nga xam ni mooy moo Anta numéro 2. mais am combat bu am solo bu taxaw dox ci diggante ki xam ni mooy Babylone. di champion di ndaanaan war a bëre ki nga xam ne mooy Hercule bu jaxaaw moom itam di ndaanaan lu bërekat mu doon combat bu neex nee naa la ñaari mbër yi nga xam ni mën nañ ni bokk nañ ci mbër yi dàq ambiance ñoom ñaar la ki nga xam ne mooy Sidi Jaxate taxawal mais bala ñoo sor rek dañuy bàyyi Babilone mu nuyoo nuyoo ay fansam waxtaan ak ñoom ñu laaj ko nan lay waaje la 27 waaw asibila bisimila nawal yàlla jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla ju seen sant suma ñaari waay ju sant Serigne Touba baax a baax baax di sant sama Serigne si Abdou Karim Serigne Abdou Bara Mbacké di sant ñëpp di nuyu mbër yëpp di leen ñaanal jàmm ñëpp yàlla ñëpp am jàmm ba ak Sëñ Bàmba ba jaw bu jaxaaw waaw ginnaaw ma sant yàlla julli seen bi sant sama ñaari waajur maa ngi sant fama baba muy jaxaw waa ngent jurbel ga ma dëkk maa ngi leen nuyu bu baax di leen woo si combat bi waaw di nuyu waa jurbel waa benn baraag ga ma nekkoon maa ngi leen di woo si bi waaw di nuyu ñëpp nag di nuyu waa salle bi yëpp waaw Babylone le 27 sa diggante ak Hercule waaw le 27 yàlla na yàlla may ndam nag bàkki sëñ Touba yàlla ko yàlla dafa jàmm nag yàlla na am jàmm te gars yi nee ma day delloo avance bi ngir jëm sëriñ Touba rek taxawal dëgër Erguel mi waaw nga xam ne ñetti at nga nii muy wër kum bëreel amul kum bëreel am na kum bëreel man maay Babylone du ma delloo avance barki Cheikh Modou Kara yàlla na ko yàlla na jàmm nag barki Cheikh Modou bu dee jàmm benn la yàlla yàlla jox ñaari at a ngi am combat maa ngi nii am na combat tey moom du delloo avance ah, waaw sëñ Fall laa bëgg yàlla ko yàlla dafa jàmm bu dee jàmm dina ëpp ci moom mu am jàmm rek hmm? bu jour ba incha allah mu ñëw comprendre ga ñu def fulla rek. est-ce que waa ji xanaa xamul li ngay daj fan nii yëpp nee bul delloo avance. waaw ndax nee nañ damay delloo avance waaw baax na incha allah du ma delloo avance ñaan yàlla ndam si kawam Babil xaw ma de. te damaa bëgg a wane damaa bëgg wane sama bopp kees dama leen ma bëree mu neex ma feccee mu neex. barke Alxuraan dama ko wax ne ma feccee mu neex mu bëree mu neex dama jóge benn baraag dëkk Jurbel war a war waree barke Alxuraan te bu ma feccee mu neex mu bëree mu neex Babilone jël nga naanaan def ma dara kess na ken xawma mais ci katanu yalla bu ma la jàppee dinaa la beurelo billahi wallahi taala yalla ma yalla may ndam si kaw ndax dama ci yow la bëgg jaaré dem dañu am jam, da nga am jam am jàmm mais dama la dakh bëre fop ci ya ko dakh bëre man bol bol la jurbel lay waré gis nga lim def bërki dem bu jurbel deggo li ma la wax seet dama koy seetaan dama koy yag top kambe fune ne laa ko fekk di ko dëkk bu dëggee jurbel jurbel ñu fa 500000 takul ngemb tapet la est-ce que bobu da non man ma jugé ci dama njaareem combat lan combat ñun barke Cheikh Modou Kalaas ma gisaatee mbabat léegi tey damay bëre ji. yaa am adversaire bi ñeme na la. champion la ndaanaan la mais yàlla ko yàlla defal jàmm laa lay wax man instant bi tollutu ma fay nekk ci làmb di wax mais barke Cheikh Modou Karaam Mbacké Noreyni billaahi wallaahi bu dëggalee boppam làmb du yàgg. seetaan nga combat yi mu bëre Dakar. non ndaanaan la champion la naa ko mais incha allah bu neexee yàlla bu dëggalee boppam laa làmb du yàgg. du yàgg incha allah. nee na boo dëggalee sa bopp combat kon jeex na.

kan mo jël lamb ji pakal law bi mo jël lamb ji wax la ki ay xam ko seenu lamb ji pakal mo jël lamb ji kana yakoba mo jël lamb ji pakal jëlu lamb ji kon ñoko seenu lamb ji xana wuy ma gende gende do pousse do passe bu jour ba inshallah dama lay yag xam top na la kambe ne la kañ beure ko ne ko ñew ma la kañ beure kon ñame la motax kon buma buma dëkke paré ñew di arrière kon man dama roj lan la wara def barbit prié duma arrière fen dama lay japp daan la yalla jamm ci yow rek Bak sëñ loolu rek la ñaal kara yàlla na ko jàmm ëpp si bu dé ben la yàlla na am ba jour ba incha allah yaa ma dégg ki mu nekké fi di wax ay njaar ñun Cees ak lañu gëmu ñu Dakar pek gëmu ñu kenn Cees ak lañu gëm comprendre nga bu taxé na ma ay Dakar ak ben bara man fuma tek sama bët du kii barke Serigne Touba ta bu jour ba di nga xam fuma tek sama bët du kii hmm? sama ben bobu la wax ben bobu mom la am mais ci laa lay daan incha allah waaw loolu am na. wooteel wooteel la 27. woo ñëpp di woo waa Kër Seex waa man na faal taax kaw kër maa laaji di woo Malay Diop comprendre nga Cheikh Diop Tafa Ndiaye di woo Baara Tall comme gars yi ñu si combat bi rek di woo Badara di woo Babacar di woo Mam Thierno di woo Baye Fall yëpp nag di woo waa Kër si seen digal Fall baax baax baax baax waaw di woo waa Rompagne Café ga gars yi ñoom borom baax ak gars yi woo ñëpp. di woo waa Jilaas waa Diofior waa Ndiosman waa Fimela di woo waa Njaareem di woo waa Taset sama dëkk kër maam sama kër maam di woo ñëpp di woo Dóor Dóor xam sama gars yi sama waa koñ Kafe ga Daaru Rahman euh, Daaru Rahman maa ngi ñëpp di ko ñaal jàmm na comme noonu rek. jaajëf wooteel Irkil. gannaaw waa damay woote di woo sama waa dëkk waa Jurbel bu baax di wax ni ñu ñëw jàpp si bu baax a baax Baye Fall sama sëriñ sañ seen digal di si woo waa kër gi yëpp waa kër Cheikh Ibra yëpp maa leen di woo bu baax ne leen seen doom gi nii tey ñëw na kees war a am combat di woo waa jaxaw gi ma nekk wa ngent police ngent xam nga tey sir jaxra moy ni police même bi combat bi ni police ndax man may mbeur police ngent bi yon man lu ma mbeur ma sa def police man la top indi ma sir jaxra mo wara jëlé police man may jël sama police ñew indi la kon nga xam na may mbeur police ngent lamb ñu ni ma lamb ja ndax dañoo booba leg mbeur da nga wara a yalla defal na mu am combat di len ci wo baax di wo tamit sama mag ma fi indi muy Lamine ndjay mu jàpp si combat bi arkhana Arxana Fall yow mi jënd sama bé nga jàpp si combat yi ndax tam combat caisse la am te gaay xamaguñu dañ ma wara xam di ci wo selte bu mag bi Jurbel Ngañ Jaañ maa ngi lay si woo di woo waa Jurbel yëpp Baay Sidal di woo ñëpp axlu Baay Faal gi ñu ray Baay Faal lañ di woo waa kër Sëñ Seen Ndigal bu baax a baax baax a baax jàpp si waaw di woo waa kees yëpp nag waa jaxaaw bàyyiwuma kenn du set waaw booy bi door mu daanu bi rek na ma ko booy jaxaaw jox waaw moom buumi la woo fi ñu indi ko man maa fi après cotage moom indi 412 13 bi ñoo may indi bu ñu ñëwee ci kaw buumi la ñuy jaar dem si ñoon barke maam Sera Fall précotage bi moom indi 412 13 Sambraay wala Bolbaari waaw kay jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy siifur ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax ñu ngi ci saalu Siri Diakhaté production mu jëm ci bis bu am solo le 27 août fa li nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw ma koddu grand combat bi dox ci diggante Modou Anta numéro 2 ak ki nga xam ne mooy Kale ngeen gis Sidi Diakhaté sponsor yu am solo yi nga xam ne moom la àndal ci bis bi muy Sokosim EDTT ak ki nga xam ne mooy maire kii Madar ak ki nga xam ne mooy AIBD yeneen sponsor yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci biir mais bala ñoo sor rek dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy soxorkale mu nuyu ak adversaire am saafonte ak ki nga xam ne mooy ay fansam soxor nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay Kara ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli si yonante bi di sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ sëriñ Modou Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te di sant assistance yëpp ñu fi toog ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa gépp duy nuyu ñëpp waaw. Anta de nuyu nañ la. Mbacke ñu ngi lay fay di wax jërëjëf sëriñ Saliou. jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou Mbacke ginnaaw ba sant yàlla jul si yonante bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama Serigne Sëñ Moustapha Saliou di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi ba sumb liggéey mu sumb si yoonu Serigne Touba bi suñu borom kàttan la ko mu ko di ziar Sëñ Cheikh soxna May soxna Momi soxna Waalo di ziar képp kuy kilifa diin ak kilifa aada di nuyu ñi fi ñëpp di ñaanal sama mbokk yëpp jàmm di ko ñaanal jàmm moom. soxor dégg nga sa adversaire ni nuyoo. muy Modou Anta numéro de ngeen jëm ci bis bu am solo la 27 ngeen doonoon combat boo xam ne yéen ñaar da ngeen a yàgg bëggante ay at combat bi ñu koy togg mënul taxaw tey mu taxaw. waaw Amine moom tamit di ko ñaanal jàmm comme lim ñu ñaanal rek ak mbër yëpp am jàmm ak ñi seetaan ñëpp Sénégal tamit yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu tamit ki ma fi àndal muy Fallou seek sama ménagère di nuyu tamit Persidi mi taxawal combat bi di ko sant bu baax a baax di sant tamit Pambay. di wax alhamdulilahi rabbil alamin ba ko bi taxawé alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wala hadd karamna bani adama wala hadd karamna bani adama wala hadd karamna bani adama combat bi lima ci wax bari wul lu tax bari wul non instant yi Thiès dafa am lo xam daf ma rëcc ci làmb ci combat bi rek la xam mëna wone barki alxuraan combat bi combat bu ma ñor la bu ma fonk la depuis 2020 la fi gëj bëre sama combat ak caatu amant kii sama combat ama bu kër baaba boobu laa fi gëj a bëri waa cees nar maa fàtte daal te loolu du yoon si diyeeg ñëpp kenn du la seet si te da ngay gis ñoo xamante ni da leen a daan si ay minutes ñu leen di seeti mais yàlla baax na. bii di sa premier grand combat. non bëri naa grand combat. non Thiès waaw. Esad mosuma see bëri grand combat Thiès mais ay Tivaouane ak yooyu bëri naa fi grand combat ak ay jandeer combat bi daal combat bu ma ñor la Kara di ko ñaanal wér. te moom gaynde la ku neex la damay liir ay kombaam démb rek si guddi bi ma tëddee maa ngi seetaan ay kombaam kon yaa ngi koy suivre ni yee jàmbaar la te li ma gën a neex si mbër day taxaw te du daw billaay wala taala jàmbaar la waa ji mi ngi lay baab de mbay Kara waaw avant tout damay damay sànni sama papa Sidi moom mi fi mu mbëri bëri tëggal ñu grand combat mais loolu yëpp bu amee grâce à sunu papa Habib Kane. yow bii di sa premier grand combat. li may wax nag dama bëgg ñu dagg ko parce que dama fay waxoon samay wax ñu dagg ko yóbbul ko met jaañ te li may wax lu ma ñor la Habib Kane du sama parrain du sama politicien sama papa la moom ak sama ñoom papa la met jaañ ñun dañoo bokk r ju màggee fa yaroo fa am nañ cër bu bëri r am cër ci li mu yor na ti bu jox ñu ñu dem wàccu nu làmb kii nag du ma wax ci moom lu bari ndax góor bala nga ko yob ñam ko te maam moom mosuñoo laale da ngeen di dëkkante boobu ba léegi. di nuyu sama gaay am àndal ku ci mel ni Assane Ba Mox Ndaw Kabasar Ëmma xam papa Amadou Jules Ndiaye avenir ñoom Massamba Baye Ali di nuyu sama gaay waa Tiwaawan waa Kër baabu Alima di nuyu sama waa dëkk waa Kébémer waa Louga waa Ndandu Fall maa ngi woo ñëpp ci combat bi na ñëpp ñëw mais góor bala nga yab ñam ko te maa ngi moom mosuñoo laale. mos ngeen a laal hmm. ngeen laale yéen ñaar. laale. fan la woon. maña nu mu demee woon. waaw moo noonu laaj ko. yéen laale woon ngeen nu mu demee woon. kii mosuñoo laale am di koy moo ko jàpp duma ko daan ko sama doomu ndey mu abal ma yat bi. combat boobu dégg naa yaa ko waroon a bëri. combat boobu non kii nag maa ngi waat si yàlla muy booy yi may wax nii yëpp man mosuma delloo avance sàmm sax bii ma koy jël ma ko barke alxuraan yàlla moo tax may wax ak combat bi mosuñu maa woo di ma wax diw mu yàqoo si man barke alxuraanu karim barke Seydina Mohamed Modou Fall a ngi ne. bëri na sama combat yu bëri moom moom si moom si moom la taxawee daanaka mais nit danga damay dégg sax nit ñi ay groupe whatsapp naan dañoo dox suñu combat wala bañ bëggee bëri ak yow bëriwoo woo barke alxuraanu karim combat ma ma sax yëpp dafa taxaw moom nag moo ma ëpp may victoire yaa ngi dégg ëpp may défaite mais lépp sant yàlla la naa xamal leen nag combat bi combat bu ma ñor la barke alxuraanu karim. xam na ni combat bu ma ñoro ngi nii. adversaire bi la wala bis bi la. la ak Thiès parce que Thiès dañoo gaaw a mën a suul ndaanaan cees gii laa dëkk booyum fii coow yëpp ñu bari lem naa leen fii cees fii sama moroom kenn mësuma fee daan arène fii ñu fi dëkk. Modou sawaay sa waay. moom sama grand la ma nangul ko ko moom dàq bëree moom doole moom dàq xeex waaye bi ma nekkee xale laa koy toog di ko étudier moom muy daan sama ay gara kon bu ñëwee ba tey làmb boole ñu mu ni moom da koo jaral kon man su ma jaralul la ma samay mbokk rey. yéen ñaar yéen a ngi naxante de. non man xale laa. yéen a ngi naxante naxante. jege leen bu génnoon kàddaante ma génn sama kàddaante li ma koy magee matul magul 5 ans matul 3 ans. naxante bi laa yéen ñaar dañuy waxtaan dañuy waxtaan gi nga fii ñun Thiès fii lañ dëkk ñun ñëpp xamante nañ man ba may am coow bi may jël cere càkk 2014 barke yaa rasulilah sama ménager rek nii dan ni ma doo bëre dan ni ma do beure ma dem jëlali sama bop avance bi ndax dan ni ma matoo mbeur ñi ma wo beure door heure bi ndax da nga amul doole ma dem jëlali sama bop avance bi ndank ñu ni ma loo sa góobe na nga ko gaa ñëw ci Modou Anta non dama koy wax dama koy xamal ni ko dama teel beure bëre arène bin may ciow may beure ay 2011 di beurentu di beure tay suba ma beure wat ay combat nomé si la amé ciow mais nit ñi dañuy gis ben affaire rek yaay deg dégg ah ku amagul 30 ans ñu bëgg la tek fo xamanteni pa nga la 27 li nga beure euh, cere caax mom nga bëgg beure ki limay beure ak mom Ah, duma ko mës a bëre si àdduna. parce que Modou bi daf kii dafa am lu ma jaral kii li ma jaral duma ma ko wax. bar bi sifle nag man ñëpp kenn xamee ma xeex bërekat la doo xeex moom non du xeex ak moom. Baykara comme am ak cere caak bi mu koy bëree man aw ma fitu bëree bay bëree arène xam nga moom si lay bëree arène la wax man 2014 2015 maa nekk latéral droit Kade Bayar di football. mais nee na làmb ji du bëre du yow. day boo man boo man minime laa ba muy bi muy bëree kara grand combat premier combat laa bëre ma ak Akon xanaa kon boobu xale laa. Daaru Salaam du bi. moo dégg ko ñëw leen ci la 27. ñoo ko bokk si simple boobu bëre ma bëre dóor. voilà yaa gi doon dàq bëre maa la mën maa la ëpp doole. maa ko dàq bëre ëpp ko doole mën ko aller ak retour. nee na moom man moo xam lan naa koy sant na liggéey rek nga xam ni bu ma simmee ko li mu duy moo kii doo ma baax ñoo ne sama combat ak Sa Thiès bi ma koy pare ñoo doon nekkandoo si diin bi mais dama koy xamal leen. amul doole kii daal dafa oyof daal mais dama koy wax lu lu mel ni midi dama bëgg mu gën a liggéey. kii xeeb na la nen da ngaa oyof. din ba ñun sori nañu waaye daanaka fa lañ dëkk ñun combat booloo ñoog din combat buñ buñ namee bàyyi ba am combat yi soo ko entraîné ñu bàyyi bëre am nañ ay métier ñu dem topp ko combat bi combat bu ma ñor la xaw ma entraîné xaw koma ñàkk bañ a entraîné xaw da nga doon entraîné avant xaw man si combat laa jóge préparation combat mu aborté ngi si sant yàlla baax baax di nek di sant tamit wa Ndar ga ma di sant accident Cissé Zeyzen di sant waa Bango. moom nga don préparé combat. Wa, maa ngi fa newoon waaw doon kii rek doon raay rek xam nga kii dafa jar a pare ndax day wër di kii na laam rek. nga li ma. waaw dina ma jik parce que bañ xam ma. wax naa bañ te lu ma wax bu arbitre sifflé ma appliqué ko. loo wax di nga ko musuma musuma fee dig mbër reyante ñëw mbër mi rey ma amul. da ngaa pare pour xeex làmb la ñuy def dinañ làmb incha allah. làmb lañ ndokk waaye fexe maa duma daan ma rek incha allah bañ nañ ci yàlla yóbbu ak. barki daa mel ne loolu mënuma waaw sa xam naa ko. fu mu wékk alxuraan yàlla moo tax may wax barki Seydina Mohamed day ne si sëriñ sax ñu woo ma téléphone ni ma sa tuur lan fa dégg avant làmb ji di taxaw barke alxuraanu karim Eh, làmb ji làmb ji simis misi génn naaj sax Sénégal te dinaa ci génn Afrique. combat bi waaw ah, li mu wax laay confirmé. déggoo ma ne laañaar laa tukaar guug ren lu leer laa la wax te làmb ji di nga ko xam man dama daan foowee làmb di ko wékk si entrement rek mais guddi yi ma toll bu fekkee làmb jaralu ma sama bakkan bi lu ma la waxati bu ko gëm. soxal yow mi man mi nekk xale bu ndawul bu la làmb jaralee bakkan man lu ma war a jaral yow man yow waaye doo wax séeréer ki ne làmb ba xam. soxor maa soxor soxor soxor bu ma woo si ay détails. non non um yow yow paa nga barki maam Serafal Lamp maa la mën mën maa la mën aller retour yow. yow yow paa nga soxor kele maa la mën. billahi boo dëgalee sa bopp combat bi du yàgg. boo dëgalee sa bopp duñ bëre lu yàgg. man maa la pour yow yow soxor yow xanaa yow boo ma ñemee boo ma yabee caméra yi tàq rek. yow xamante nañ de. Ah? boo ma yabee caméra yi tàq. nga ne ko boo ma yabee. ñu xamante kii ma kii li ma ko def mbër. laaj ko lan la ma def mu ne lan li ma ko def dama ko mos a def mbër fekk ko ma ñaaw bëreewul bëree ma ma duma ko mu ñëw naa damay porte plainte maa la mën mën ko la maa la gën a <laughs> nee dama ko porte plainte xam na la def am na na koy moo tuus ba pare ma jékki-jékki di dox si am na koy de mu jékki-jékki këf sama mbaxane bett ma dóor ma yaa ngi dégg yaa ngi dégg sama kër su téye ma ni ma baal mu sedd ma bàyyi ko ba mu taxaw pambay ma fekk ko fa mu génn stade bi taw barke yaa bu fekk ak sama combat bii ak sama combat bi bu fekkee tëbaliwu ma ko yàlla bu ma yàlla nga war sama kaw xanaa loolu nag. barki Serigne Saliou bi ma yaakaar kon dinaa war si kawam soxor kele bu ma lan boo ma tëbalee yow yàlla bu ma daanati mbër. wooteel non non teel na Baydara kii. man bi may ñibbi maa ñoom Pambay. woote woote leen la du bi am na koy tuusee laa ko dóor te loo ma mën a réglé trop yow sama wa taala gis nga loolu nga def noonu di nga ko rëcc. du ma la ko rek gëm ma waxoo dëgg yow maa la mën ëpp fuuf. xam la lan ma xamee discipline. ok baax na. waa di woo 100 pour cent soxor kele yi di woo waa Thiès ñëpp di wo sama fans club bi di wo sama wa koñ ma ngi wo ñom Tafa Diop Khadim jeng Souleymane Fall Cheikh djouf janci seigne Sëñ Fallou Anne Modou Senghor di wo ñom tala ñang Cheikh kan ma ngi lay wo Fallou Gueye ma ngi lay wo ma ngi woo Ndéla jaaykatu lujum Abdou jack ma ngi lay wo mas fay ma ngi lay wo Abdou Samb Tiawan ma ngi lay wo si combat bi ba jatara ma ngi lay wo si combat bi biram Souleye Diop japon nga si combat bi passé ma ngi lay wo di wo autorité yep di wo tamit Babacar maire Thiès bi maa ngi koy woo di woo gaay yëpp di woo sama waa koñ fàttewuma kenn di woo waa dakaar sama mbokk yi waa Gugureen sama kër papa maa ngi leen woo waa Laañaar sama kër maam maa ngi leen woo waa Tukaar di leen xam ne seen tour famille bi dimanche dinaa ñëw incha allah rabi di woo waa yëpp leen wax ne seen doom a ngi nii incha allah rabi di leen ñaanal ngeen ñaanal ma ndam parce que combat bi kombaa bu ma jaral la waaw di woo waa Thiès gépp oo ma fayu kenn daal. rajo Modou waaw di wo di woowaat gars yi rek ku ci mel sama papa Abi medjang Med Diagne Yankoba Cheikh Lo ablay jey di wo wa Bayal gépp waa Ndioufène gépp waa Ndiobène Jaloore mourid ge ga seigne ablay ñun fee dañu yoni 3 9 points lañu laaj ta inshallah dañ ko andi di ñaanal boy bambara ndam sama rax avenir ndam ak bepp mbeur bu waré côté bobu yalla na suñu borom defal ndam di wo di wo wa R100 Cheikh Lo Yankoba Diatara encore une fois sama papa Abi di wo famille Ndioufène gi sama sama wa dekk wa kebe Kébémer wandan Ndande lugolo Louga loo di woo allah ba bis ba sunu borom mi may ndam defal ñu ndam ci bak seigne Saliou. wa ma ngi wo khadim Espagne khadim Saw ma ngi lay Espagne lay Ba ma ngi lay borom Espagne Omar Kebe borom France ma ngi lay pour nga japp si combat bi di wo sama xarit yi may andal yep gis na combat bi passé sama xarit amida Fass yi may andal ñom ñep a xaliss dimbalé mako dañoo jëm si safar nag Sidi Diakhaté maa ngi lay ñaan date bi boo ñu ko mënee puusal samedi bi dinañu ñu dañoo dañoom safar gu mag la vingt 26 incha allah rabbi samedi bi boo ñu ko mënee puusal mu doon le 26 le 26 bi ñu arrangé lool mais dañoo am safar waaw incha allah. ajo jël leen photo waa di di woo sama coach Dev grand grand major Cheikh Lo maa ngay woo xam nga di woo sama rax Amène Mbaye be di woo Bamba Bamba Lazoa borom tisi rond-point di woo ñëpp képp kuy jàppale Anta 2 rek maa lay woo fii daa baax rek.